wa taabici hudaahu ila yowmi ddin wa baad aleykum wa taala wa barakaatuhu bu ñu sante borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne huwa ahlu sanaai walhamdi walmajd ñaan ko mu wuutu ñu julil ñu ci yonte yàlla muhammadin sallallahu alayhi ak mboolem mbokk yonentam yépp ñaanal ngërëm suñu wasila ci yàlla cheikh saydi ahmed tijaani radiallahu anhu ak mboolem ñu topp tariqam yépp ñu ngi nekkoon ci téere bu barkeel bi ñuy tudde kitaabu rimaaxu xusbi rahim ala nuxuuri xusbi rajim li sayidina wa cheikhina alxaaji omar ibn said alfuuti altorawi algadawi mu doon téere bu barkeel boo xam ne défendre nitu yàlla yi principalement Seydi Cheikh Ahmed Tiyaani ak tariqam moo ko tax a jug waaye sëriñ bi jàngal ñi ci wàllu sharia loo xam ne buñ ci yemoon rek ñu mën cee xame lu bari tey nag ñu ngi ci faslu arrabi wal ashrun fi fadli dikr mutlaqan wa fawaidihi walxassi alayhi waltargibu fiihi min gayri taarudin lilijtimaci lahu waljahr bih wa gayruhu fa aqul wa billahi altawfiq wa huwa alhaadi bimannihi ila sawaai tariq tey mawlaana alxaaji omar fuuti mu ngi ñëw di indi daanaka li ëpp solo ci téere bi ci chapitre vingt-quatre bi muy waxtaane tey ngëneelal zikr nag ndax bu nit di uti ji sëriñ wala ngay uti ji nitu yàlla doyewoo ko lu dul mu jox la zikr boo xam ne yàlla dana ko nangu ba yàlla gërëm la léegi nag kon d'une manière générale tey day waxtaane lan mooy zikr ak lan mooy ay njariñam ak ak soññe gu muy soññee ci ñu bëgg ñu sax ci zikr di ci loo nit ñi nee sax jarul ma ci gaar maanaam daje yu ñu war a daje wala di ko wax ci kaw déedéet zikr rek d'une manière général nga xam ne wasifa ñëwagul xadara ñëwagul waaye nit ku nekk daal sa zikr loolu la bëgg a waxtaane tey nga xam ne alquran ak sunna loolu la feese dal mu ne fa aqulu billahi tawfiq maa ngi ñaan yàlla ne yàlla moo ñuy dëppale wa huwa alhaadi mel ni ila sawaai tariq moo ñuy orienté itam ci yoon wu jub yi ba li ma bëgg mu matal ko mu ne i'lam anna dikra ashrafu ashrafu ashrafu al-ibadat lianna saa'ira al-ibadati taqdi binqidaai ad-dunya illa dikrullah wa fi lawaami'i al-anwaar fi al-ad'iyati al-adkaar li Shihaab ad-Diin Ahmad ibn Hajar al-Asqalaani yaani anna ahla al-jannati mudaawuuna mudaawimuuna ala dikr fiha li fiha li anna saaira alibadati tanqadi binqidaai dunya illa dikr allah fa innahu la yanqadi bal مستمر للمؤمنين في الدنيا والآخرة جعلنا الله من الذاكرين الفائزين الفرحين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال بعد كلام كثير وقد روى أهل الجنة وقد روي أن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس كما يلهمون النفس يقولون سبحان الله والحمد لله متلذذين لا متعبدين كما يتلذذ من به داء العطش بالماء البارد وقال الإمام فخر الدين الرازي في أسرار التنزيل اعلم أن جميع الطاعات تزول يوم القيامة أما طاعة التهليل والتحميد فلا تزول عن المؤمن وكيف يمكن زوالهما عنه والقرآن يدل على أنهم مواظبون على الحمد والمواظبة على الحمد توجب المواظبة على الذكر والتوحيد وإنما قلنا مواظبون على الحمد لقوله تعالى حكاية عن المؤمنين في الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام الآية لا له إلا إلا له الحمد لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة fa sabata annahum muwaadibuuna ala alhamdi walmuwaadabatu ala alhamdi muwaadabatun ala aldikri fa calimna min hada anna jamica alcibaadaati zaa'ilatun can ahli aljannati illa taacatu dikr wa qaala bacdu almufassirina fi qawlihim tacaala dacwaahum fiiha subhaanaka allahumma annaha calaamatun bayna ahli aljannati wa bayna xadamihim fi altacaami fa ida araadu altacaama qaalu subhaanaka allahumma fa yaxduruuna lahum fi lwaqti maa yashtahuuna ala almawaidi kullu maidatin maylun miilun fi miilin ala kulli maidatin sabcuuna alf saxfa fi kulli saxatin alfuun alwaanun min altacaami laa yashbihu bacduha bacdan fa ida faraguu min altacaami xamadullaha xamidullaha taala fa dalika qawluhum dacwaahum fiha subhanaka allahumma wa taxiyatuhum fiha salaam wa axiru daawahum an alhamdulilahi rabbil alamin fa ida qarara hada faalam anna dikra sababu saadati fi dunya wal axira wa matradatun alshayatin wa yurdi rab wa yajlibu risqa wa yuyassiruhu wa yukassir الذاكر ويكسى الذاكر مهابة ويورث محبة الله تعالى ومراقبته ويورث الإنابة والقرب من الرب ويفتح wa yaftaxu baab almagfirati wa yurisu alabda ijlalan li rabbihi wa yurisu zikra allahi taala lilabdi bihi wa taxya bihi alqulub kama yaxya alzarcu bilmatruud kama yaxya alzarcu bilmatar wa huwa quutu alarwaax wa jalaau alqalbi min alsalaa wa yurisu annuura fi lfikr wa yaxutu alzunub wa yuzilu alwixsha bayna alabdi walrabbi wa ma yazkuruhu alabdu walrabbu wa ma yazkuruhu alabdu min naxwi tasbixin wa takbirin wa tahlilin wa taxmidin yudkarna bisaaxibihinna xawla alarshi walcibaadaatu kulluha la tazulu an alabdi fi alxashri waljanna illa dikrullahi taala waltawxidu walxamdu waldikru wa dikru tuqarribu ila allahi taala wa huwa lil abdi sababun li nuzuli sakinati alayhi wa xufuufu almalaikati bihi wa tazuluha ladayhi wa gashiyaanu rahma wa nuzuluha ladayhi wa gashiyaanu rahmati wa huwa lil insani shaagilun an algibati walkadibi wa kullu baatilin mawlaana alxaaji omar radiallahu anhu ka aadatihi nga xam ne lépp lu mu xam ne njariñ la mu ñu koy indil ci téereem bu tedd bii euh, tey nag mu ngi waxtaane njariñal zikr zikr nag mooy dëddul xaflati mooy contraire fàtte zikr mooy rappel zikr mooy yëg-yëg zikr mooy nekk fi euh, contraire am mooy fàtte yàlla ñàkk tudd yàlla ñàkk fàttaliku yàlla ak yu mel noonu nga xam ne yooyu yëpp lu négatif la ci diggante jaam bi ak borom ndax diggante relation jaam ak borom warul dagg benn cers waxatuma la minute waxatuma ngay dem nag ba di ko fàtte moo tax mu wax ne na nga xam ne zikr jaamu yàlla yëpp moo ci gën d'ailleurs bu ñuy digal nit jaamu yàlla sax looloo tax mooy ñu rappelé yàlla fu ñu toll kii woor koor gi muy def yàllaa tax tax gi yàlla tax loolu zikr la kii julli julli gi muy def yàllaa tax loolu kon zikr la kii xaji ji màkka li mu dépensé ci alalam yëpp yàllaa tax tax googu moo tax loolu zikr la maanaam yëg yëg googu nga yëg yàlla nga xam ne looy def rek yàllaay tax même ki fakkastalu sax ne alhamdulilahi rabbil alamin yëg na ci fakkastaloom ne yàlla moo tax loolu moo tudde zikr mooy yëg yàlla ñu wax ne jaamu yàlla yëpp moo ci gën ndax moom mooy ñoos bi ci jaamu yàlla goo gis ndax mboolem jaamu yàlla yi téere yi dañu wax ne dina jeex bu àdduna jeexee nit waabud rabbaka xata yaatiyaka al yaqin lañ la wax jaamul yàlla ba dee ñëw kon nit loo bëgg bëgga bëgg a julli tisbaar rek tàkkusaan boo xasee dee wàcc na la loo bëgg a bëgg a woor weeru koor waxuma sax deewaay boo feebaree mënatoo ko et cetera jaamu yàlla yëpp bu àdduna jeexee jaamu yàlla yooyu day jeex ba mu des zikrullah moom rek lañu xam buy persister dem barzax dugg ak moom yowmal qiyaamati dem ba àjjana Euh, nga gis ne kon jaamu yàlla gu foor la ndax moom rek moo ci mën a am euh, longévité bu toll noonu dafa am benn téere bu ñuy wax lawaamiul anwaar fi l adiyati wal azkar ibnul xajar al asqalaani moo ko def nga xam ne borom xam-xam bu mag la woon dëkkoon asqalaan moo defar fatxul bari muy charx buxaari di borom xam-xam bu mag liggéey ci lislaam lu bari Cheikh Omar nee na téereem boobu wax na ci ne waa àjjana dañuy sax ci zikr mboolem durée ba ñuy nekk foofu kon wane ne kon zikr du jeex yemul ci àdduna euh, ñoom duñu romb benn waxtu waa àjjana <coughs> lu dul dinañ wax alhamdulilahi rabbil alamin comme ni ko aay yi indi kon jullit bu jaamoo yàlla fii ba dee dugg àjjana yàllañ ci yàlla boole bu duggee àjjana day continuer di zikraat du foofu nag du fa nekk di julli wala leneen euh, waaye zikr bi moom daf koy def avec plaisir nag euh, duñu fa ragal dara nekk ci jàmm ju yaatu ibnu xajar bi mu nettalee loolu ba àggal mu mel ni dañ ne àjjana amul benn taklif maanaam dara warula la fa buñ nee la nag da ngay zikkaraat àjjana foofu te yow nga yëg sa zikr yi coono yim la tegoon léeg-léeg nga tëdd euh, tëdd ba digg guddi nga yeewu commencé di zikr bay jayaaxu fi nga toog di nelaw léeg-léeg nga toog di zikr bëccëg gi <clears throat> sonn bay bëgg a dee léeg nga toog di zikr di wax ca kaw ba sa baat bi dee waaw kon bu ñu nee boo fa demaatee yooyu day am ibnu xajar na déedéet différence suñu zikr bi ci àdduna ak bu àjjana du benn bu dee bu àjjana bu dee bu àdduna afwan boo koy def daf la war yàlla moo ne del waskur rabbaka daruan wala yu mel noonu euh, mais bu dee àjjana nag ku da koy wax ci maanaam lu naturel lay doon day dox ci yow comme ni noy yi di doxe gisagu fi gisaguñu fi kenn kuy wax naan dama noyyi ba sonn xam nga doo ko dégg te bés bi des milliers de noyyi di nga ko noyyi waaye gisagoo kenn ku ne maa ngi ni sonn naa ci noyyi bi ndax yaa ngi noyyi mais doo ko yëg ndax bi mooy tax ngay dund Euh, ah, subhanallah bi ngay wax ci àjjana itam ak alhamdulilah mooy gën a woyof ci yow sax noyyi te am nañu tàmm lool nitu yàlla yu baax yi lu ñu wax rek tudd yàlla laa ilaha illallah waaw man diw allahu akbar waa diw subhanallah yow diw nangam maanaam moom waxtaanam sax tudd yàlla la ci la ci bokkaale ba nga xam ne kooku moom doom benn problème pour tudd yàlla waa àjjana noonu la ñuy mel dañuy waxtaan di tuddaale tuddaale yàlla mais di ko béggee waaye doonul loo Euh, coono lay doon ci ñoom euh, ni nga xamee ne tabaarakallahu ibnu xajar nee na nit ni muy bànneexoo ci mar lool ñu jox ko ndox mu sedd guy nee na ñoom bu ñuy wax foofu subhanallah ak alhamdulilah noonu lay neexee ci ñoom nga gis ne kon du foofu du fa fardo du fa coono moo tax diin faxruddin arrazi wax na moom ci téere bu ñuy wax asraaru tanzil nee na na nga xam ne mboolem jaamu yàlla yëpp yowmal qiyaamati yëpp ay arrêté foofu kenn du fa joxe azaka kenn du fa julli naafila kenn du fa woor lu dul jaamu yàlla gu ñuy wax la ilaha illa allah ak alhamdulilahi rabbil alamin maanaam yooyu moom day continuer di dem ba ba ñuy dugg àjjana du dañ mukk ci jullit bi nee na lan moo tax sax mu war a dañ ci moom te alquran indil nañu ay aaya yuy wane ne ñoom waa àjjana dañuy sax ci wax alhamdulilahi rabbil alamin ak ay aay yuy wane ne dañuy sax ci euh, wax laa ilaha illa allah te loolu nettali nañ ko ci alquran yàlla mu wax ne dañuy wax naan alhamdulillahi alladi azhaba anna al xasana inna rabbana la gafurun shakur waa àjjana ñooy waxaat itam alhamdulillahi alladi sadaqana wa'dahu wa awrasana al arda natabawwa'u min al jannati xaytu nasha fa nicma ajrul aamilin waa àjjana ñooy waxaat itam naan daawahum fiha subhanaka allahuma wa taxiyatuhum fiha salaam wa axiru daawahum an alhamdulilahi rabbil alamin kon baatu subhanallah eh, ak eh, bi wax ne laa ilaha illa huwa lahu alhamdu fi lula wal axira te alaxira mooy alhamdulilah jooj ñuy wax ci àjjana kon loolu aay yi saxal ne imam faxru diini razi nee na aay yi saxal ne kon nit ñi dinañ continuer di tudd yàlla ci biir àjjana ñu xamee ci ne kon mboolem jaamu yàlla yi ndax yàlla waxaatuñu beneen jaamu yàlla bu ñuy def àjjana lu dul zikr bii kon ñu xamee ci ne moom rek moo dul arrêté len nag sax ci na yi wax nañ ne e, wax wax ji ñuy wax daawa fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salaam wa axru daawaam alhamdulilah rabbil alamin sabab la waa àjjana tey jii ku nekkoon ci kër añ bi yéex pare boo jaaxlee da ngay dem ci waañ bi ne waaye fu fan la añ bi toll pareegu leen waa àjjana nag appartement ya ñuy nekk foofu kenn du leen fa fekk euh, léegi sonnerie yi nga xam ne moom la ñuy bësee pour wane ne euh, serviteurs ya fa ne pour wan serviteurs yi ne soxla nañ añ wala soxla nañ reer wala soxla nañ lekk foofu plat moom amu fa heure ñoom dañuy wax rek ne subhanakallahuma moom daal lool mooy sonnerie bi ngay bësee boo ne subhanaka allahuma yàlla wax yóbbu wax yi ba ci nopp serviteurs yi ñu xam ne maison sàngam bés euh, euh, maanaam soxla nañ nàngam loolu nag waxin rek la waaye àjjana gën naa gaawe noonu subhanaka allahuma buñ ko waxee bu ko defee serviteurs yi ñëw euh, aménager benn place boo xam ne kilomètre ci kilomètre la maanaam un kilomètre carré un kilomètre carré moom la ñuy aménager def fa ay natt Euh, dafa euh, ay ay ay ay tabaarakallahu ay table euh, teg ci ay teg ci ay teg ci ay plate téere yi ne table bu nekk téere Fakhruddin Arrazi mooy wax nee na table bu nekk dinañ ci teg soixante dix mille plats te kenn rek la ñuy indil añam de kenn rek benn nit lañuy indil añam waaye daal table bu ne dinañ ko tegal soixante dix mille plats ci un euh, un mètre kilo euh, euh, kilomètre carré boobu léegi li la ciy yëm nga ne waaw soixante dix mille plats xanaa bii moom bu nekkee maafe bi ceebu jën bi nangam bi nangam yow bala nga cee am fukki plats yooyu jeex mu ne noo waxuma ne sax plats yi diversité bi daf fay ne mais benn plat bu nekk benn plat bi ci boppam moom mooy am xeetu togg yu bare bare bare bare benn plat bu ne te taabul bu ne dina am soixante dix mille xam nga loolu wax dëgg yàlla suñ plats yi mënaguñ ko euh, léegi nag ñoom subhanakallahuma rek lañ wax moo indi li yëpp de dañ ne rek subhanakallahuma mu indi leen teraanga ji yëpp léegi nag bu ñu lekkee ba suur euh, dañ naan alhamdulillahi rabbil alamin léegi alhamdulillahi rabbil alamin mooy wa axiru daawahum an alhamdulillahi rabbil alamin loolu mooy jox ñële son buy wane ne Eh, ñi doon añ wala ñi doon ree pare nañ kaa leen laal li ndab yi bu fee serviteur yooyu ñëw laal li la fa nekkoon yëpp dem ñoom nag bu ñu dajee ci àjjana dañ naan wa taxiyatuhum fiha salaam ku ci dajeeg sa morom dana ah asalaamualeykum asalaamualeykum wala salaaman salaaman qawluhum fiha salaam kon ñetti son yi lañ gis ci waa àjjana muy subhanaka allahumma ak eh, taxiyatuhum fiha salaam axir daawam alhamdulilah rabbil alamin nee na loolu nag bu dee sax nag kon da ngay gis ne zikr euh, comme moom mën na persister fii ci àdduna ba àllaaxira euh, war nga xam ne kon foor na torop euh, ndax zikr Cheikh Omar nee na moom mooy sababu texe ci àdduna ak àllaaxira maanaam boo bëggee am réussite ci àdduna ak àllaaxira def ko ci zikr zikr rek moo mën a dàq seytaane dafa mel ni benn yat wu rëy boo xam ne bu la seytaane dégmale rek nga ne laa ilaha illa allah wala subhanallah wala xasbunallah wa ni'mal wakil day mel ni daal benn xeer nga ko sànni rek seytaane daw nga tur yàlla dafa foor bokk na ci li zikr man dafay kontaanloo yàlla te jaam war naa sonn ci luy kontaanloo yàlla waaye li bu risque dafay xëcc itam ay wërsëg koo dégg mu naan temps yi dafa dëgër temps yi sama dara doxul dafa bariwul lu muy tudd yàlla waaye bu baree lu muy tudd yàlla ñaar dina ko dal yàlla dina ko jox loo xam ne du ñeewati keneen waaye itam même bu dul loolu yàlla dina ko jox xol boo xam ne loolu muy wax ne dafa dëgër xëy na moom xolam a dëgër waaye bu xolam nooyoon dina gis ne yàlla jox na ko yeneen xéewal yu mu mënta sant yoo xam ne nii bu ci bàyyi woon xel lii sax li mu ñàkk du ko yëg way yessiruhu dafay yombal itam wërsëg koo gis mu bari lu muy tudd yàlla néew na lu muy wër di yalwaan ndax yàlla dana ko jox lu mu suturlawu waaye itam dafay solal nit ki personnalité euh, muy tabaarakallahu doo gis mukk yàgg zikr turu yàlla dem ba leeru turu yàlla feeñ ci jëmmam muy doon ku ñàkk fayda wala ku ñuy doyadal loolu du mën a nekk wa yurisu mahabbatallahi taala wa muraqabatahu bari looy tudd yàlla dafay def yàlla nekk da ngay bëgg yàlla bëggeel goo xam ne heure zikr bi bu jotee tànk defoo ko doo am jàmm waaye itam dangay bàyyi yàlla xel xam nga buñ naan bàyyi leen yàlla xel regal leen yàlla yow nga gàddu sa kurus foo toll yaa ngi tudd yàlla foo toll xam nga bàyyi yàlla xel kay ci yow la fekk baax ndax yow yaa dëkk ak yàlla ci intimité am wa yurisul inabata wal qurba min ar bokk na ci zikr Cheikh Omar nee na dafay jur nit ki di dellu si ci yàlla xam nga nga dégg kuy waaraate naan dellu leen si yàlla waaye loolu kenn du ko wax kuy zikir parce que kii zikir la muy def yàllaa tax kon kooku moom loolu wàcce na ko dafay gérer itam proximité entre jaam bi ak boroomam maanaam day gën a jegeel jaam bi yàlla wa yaftaxu baabal magfirati dafay ubbil jaam bi itam buntu wërsëg waaye itam dafay ubbil jaam bi buntu njéggal gis nga nit léeg-léeg nga def bàkkaar yoo xam ne xamoo ko ba di ko jéggalu nit bés bu jot nga def bàkkaar yoo xam ne yëgoo ko waaye bàkkaar yooyu boo baree looy def laa ilaha illallah wala subhanallah wala bismillahi rahmaani rahim wala yaa rahmaanu yaa rahimu wala yaa fattaaxu yaa xam turu yàlla boo ciy tudd te yàlla tax day jur lumière boo xam ne day raxas sa ruux ba bàkkaar yooyu nga yëgul sax dafay setaale te doo ko yëg wa yurisu al abda ijlalan li rabbihi wa yurisu zikra allahi taala lil abdi bi day tax itam yow jaam bi dafay jur ci yow nga gën a màggal yàlla te loolu ñu ñëpp dund nañ ko jamono yi nga xam ne jëlegoo werd wala bareegoo looy def zikr fi nga teg yàlla tey jii bokkul ak fa nga ko tegoon jamono yooyu nga xam ne defagoo ko euh, dafay bari itam dafay jur itam yàlla di la tudd ndax yàlla nee na fu ma sama jaam toogee di ma tudd man it yàlla ci sama intimité ma toog di ko tudd te léeg-léeg sax nga gis koo xam ne koo fonk la mu naan lan bër bër ki demoo njaay demoon naa ci xalif général bi wala demoon naa ci président bi wala ministre bi d'ailleurs sax ñu ngi la fay waxtaane rek waa ji tëb nekk président moo ma tudd wala xalifa bi tudd na ma mu ne ah waxtaane nañu tey mbir kay lu yaatu sax gis nga ni ngay bégee ngir jàpp kilifa gu mag tudd na sa tur masa nag yàlla mi nga xam ne nii moom boo koy tudd ca intimité am te yàlla moo ëpp ñëpp moom fa lay toog di la tudd tuddam nag du toog di tudd sa tur rek waaye ay xéewal yoom lay dote la rek ak ay teranga yum lay may donte yàlla ak tuddam ni ñu réere jëmmam noonu la ñuy réere loolu yëpp euh, day dundal itam xol tudd yàlla dafay tudd dundal xol Euh, ni nga xamee ne noonu la taw di dund di dundalee maanaam gàncax ku ne xam na ne ku dem ci àll bi ku dem ci àll bi jamonoy bekkoor da ngay gis ñax wi yëpp wow koŋ suuf si commencé xar waaye bu commencé taw ay fan wala ay semaine nga ñëwaat ci àll bi da ngay gis verdure bi mu vert gis nga xol boo gis itam muy dem noonu rek la mel suuf la booy tudd yàlla lu bari day mel ni taw boo xam ne taw lumière la moom mooy taw ci ruux bi bu ko defee xol bi dund nga ragal yàlla nga gëm yàlla nga bëgg yàlla nga sopp yàlla nga baax waaye boo dul tudd yàlla xol bi dafay wow dafay wow euh, dangay ñàkk fayda dangay bon dangay ñàkk xorom da ngay ñàkk kersa da mën a saboote loo gis même bu dee diine sax di ree ba daanu ci suuf parce que sa xol dafa dee mais yëgoo ko yow doo dund bu ko defee képp ku jublu ci yàlla da ngay foog ne dafa dof wala koo gis muy zikkër nga foog ne dafa ñàkk fayda wala dafa amul lu muy def fekk ne yow sa xol bi dee mu dee moo tax doo yëg loolu boo commencé nag di tudd yàlla dangay yëg taw boobu jur ci yow verdure boobu euh, moo tax zikr mat naa sawar Cheikh Omar nee na waquutul arwaax yi moom mooy denrée alimentaire bi nga xam ne moom la ruux bi itam di dunde ku ne xam na ne ku dul ndékki du añ du reer dëkki ko ay at dootul li nga dee ruux itam dafa soxla lu mu war a dunde ndax yaram ni mu war a dundee noonu la ruux war a dundee ruux nag li koy dundal mooy toog di zikr ndax moom comme ci yàlla la jóge quli ruuxu min amri bii moo tax mbiru yàlla rek koy dundal Cheikh Omar nee na wa jalaaul qalbi min as-sada zikr dafay raxas xol ci xomat yeneen bi moo wax ci xadis bu wér ne gis nga ni seen weñ yi nii seen weñ yi waa ji nga xam ne alir euh, alir la yor wala gupp ne da ciy bay wala mu yor peel wala sémmiñ euh, wala paaka wala yu mel noonu bu ko dencee ab diir dafay ñëw fekk mu xomaat mu xuur bu boobaa bu dee paaka la du mën a daggati ndax dafa am luy dafay teg der yonent bi nag nee na ku ki ko bëgg a yittewoo wala ki ko bëgg jariñoo daf koy yóbbuwaat ci kay liggéey ne ko daasal ma paaka bii dafa xuur euh, ñu daas ko euh, yooyu ci yokk woon yëpp ñu raxas ko ba mu set wicc après daasaat ko buñ ko defaraatee ba def ko ci mbaram indil la ko da foog ne paaka bu bees la wala jaasi ju bees gis nga bim xuuree rekk sànni woo ko ne noo li xuur na yàqu na déedéet da nga dem nga toppwaat ko defar ko ba yi ci yàqu yëpp ñu retaaye ko ba mu baaxaat nga mën a jëfandikoo paaka boobu wala jaasi jooju wala semmiñ boobu wala peel boobu wala alir boobu yonent bi nee xol noonu lay mel xol nag day jekki-jekki xomat salte salte yi ci yàgg dugg ak bàkkaar da koy xomatloo ba boo wattul borom du ko mën a jëriñoo waaye li koy xàcc ba mu setaat mooy tudd yàlla kon ndeke xol boo xam ne boroom day tudd yàlla mu ngi mel ni benn liim la boo xam ne da koy liime di ko xàcc ba mu set wicc ci tudd yàlla subhanahu wa taala lañ ci yàlla xiir Cheikh Omar nee na wa yurisu nuura fil fikri tudd yàlla dafay jur ci xol lumière maanaam nit dafay nit kiy tudd yàlla dafay lucide xalaatam day rafet waxinam day dal euh, te itam dafay doon ko mûr moo tax ngay gis xale bu ndaw buy faral di tudd yàlla expérience su magu deux cent ans lay amee nga gis xale boobu bu toogeek ay mag di waxtaan bootul mag yëpp attan nañoo bàyyi seen xelaat ngir dem rejoindre xelaatu xale boobu ñu naan yow xanaa danga jàng téere yi yow xanaa magala yar yow xanaa nangam fekk dara turu yàlla bi mu yàgg zikr moo dem ba leeral xelam ba nga xam ne dëgg buñ ko doon gëstu moom bokk rek da koy gis nii yàlla moo wax ne in tattaqullaha yaj'al lakum furqaanan boo leen ragalee yàlla rek yàlla defal leen benn clairvoyance boo xam ne nii dafay nekk ci seen kanam lépp lu lënt rek yow da koy xam rapidement wa yuhittu zunuba Cheikh Omar nee na tudd yàlla dafay effacer ay bàkkaar te kooku c'est explicable moom lañ doon wax léegi ndax bàkkaar lëndëm lëndëm la tudd yàlla ak turu yàlla leer la te ku ne xam ne ne lëndëm ak leer duñu daje bu leer gi ñëwee rek dafay effacer lëndëm gi moo tax bàkkaar boo def boo yëg boo yëgul booy bari looy tudd yàlla daf koy effacer wa yusilul wixchata bayna al abdi wa rabbi dafa am lu ñuy tuddee ak wéet wéetaay goo xam ne diggante jaam lay dal ak yàlla mooy relation bilatérale yi di nga ciy dégg euh, ay maanaam froidissement ñu ne entre pays sàngam ak sàngam neexootuñu wala entre diw ak diw neexootuñu loolu dafay dal képp koo xam ne séq nga ak sa morom benn relation Euh, froidissement boobu nag di am ci diggante jaam bi ak boroomam kenn du wax ne sax borom bi da koo mere waaye jaam xëy rek mel ni ku bàyyi boroomam topp ndawam nee na bu bëggee gérer waat lien yi ba dellusewaat ci boroomam nay tudd yàlla rek bu boobaa day dindi wéetaay gi nekkoon ci diggante jaam bi ak boroomam wa maa yazkuruhu abdu war rabbu wa maa yazkuruhu abdu min naxwi tasbixin wa tahlilin wa taxmidin yudkarna bi saaxibihinna xawla al arshi mu mel dañ ko laaj ne ko waaw relation boobu lan moo koy refer miiraat lan moo koy boolewaat mu ne waaw parce que boo nee subhanallah yow benn baat rek nga wax benn son doo ko gis mais jëmmu leer lay doon bu génn taxaw boo ne laa ilaha illallah doo ko gis mais jëmmu leer la goo xam ne jug na taxaw sa kanam boo ne subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim jëmmu leer la goo xam mu ngi taxaw boo ne xasbunallahu wa ni'mal wakiil jëmmu la goo xam mu ngi taxaw boo ne illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin jëmmu leer la ko taxaw et cetera léegi yooyu noonu ngay wax noonu mu doon jëmmi leer après duñ taxaw rek dañuy dem dañuy ascender directement dem ci yàlla léegi ascension boobu ñuy def dem dañuy daw doon jëmmi leer ba ci xadara yàlla euh, ñu ne yàlla ci wax diw ak lay nuyu mu ne kuy diw ñu ne ko diw doomu diw ak diw ñun dayer moo ñu wax nii ba ñuy ñëw ci yow ndax baat yooyu ci yàlla lañ bokk léegi yàlla laaj leen lan ngeen bëgg ñu ne vraiment daal le minimum nga jégal ko ay bàkkaaram yóbbu ko àjjana ci waxin yàlla bindal leen benn këyit ne leen bu ma ko narul woon a yóbbu àjjana du ma du ma du ma ko xiir mu wax baat yu toll nii ba yéen ngeen taxaw sama kanam xanaa kon ñi ñuy doy nañ ay avocat moo tax nit booy tudd yàlla bàyyil xel ñooñu parce que tudd gi ngay tudd boo ko baaxalee sellal ko ay jëmma la doon yoo xam ne ëllëg ñoo lay ràmm sa digganteek sa borom euh, wal ibadatu kulluha tazulu an al abdi fi al xashri wal janna illa dicrullahi taala wa tawxid ila allahi taala wa huwa lil abdi sababun li nuzuli as-sakina ba tey Cheikh Omar di wax na tudd yàlla ku ne xam ne ne dafay jegel nit yóbbu la àjjana waaye boo xasee dugg àjjana mboolem jaamu yàlla yi nga daan jaamu yàlla yooyu dañ koy arrêté ba mu des tudd yàlla comme ni nga ko waxee ci gannaaw muy laa ilaha illallah ak alhamdulillah ndax yooyu day jegel nit ci yàlla booy faral di tudd yàlla comme ni ko xadis bi nekk ci saxiixu Buxaari yi indee espace bi ngay tudd yàlla yàlla daf fay def ñeenti mbir moo xam ci jàkk nga toog moo xam sa néeg la moo xam sa sàll moo xam sa zawiya la euh, toog naan laa ilaha illallah wala subhanallah moo xam individuel nga walla mbooloo ñeent daf fay wàcc benn bi mooy yàlla dafay wàcc ak dal ak dal gisagoo mukk ñu toog di tudd yàlla laa ilaha illallah laa ilaha illallah te da ngay ne balañ faa jóge seen yaram bi yëpp day mel ni lu dee ndax lumière la boo xam ne bu duggee ci sa yaram boo watul boo watul pour nga jug sax fi nga toogoon jafe-jafe lay doon gis nga nit lu mu yëngu yëngu yëngu bu toogee di zikr di tudd yàlla balaa pare day yëg yaram bi mel ni lu nagam yaram bi mel ni lu tayal Euh, yaram bi mel ni euh, euh, maanaam xolam xolam xolam tooy parce que dafa am lumière bu wàcc ci moom téyewu ko ñaareel bi mooy yàlla dafay wàcc ci ñoom yërmande maanaam kon gannaaw dal gi yàlla day wàcc waat ci ñoom yërmande muy taw leer boo xam ne nii yërmande jooju mën naa tax sax bi ngay tudd yàlla bu fekkee nga bokkoon sax ci li listu waa safara bu ko yàlla nangoo ci yërmande googu bala ngaa pare yow mën nañ la fa mën ngaa taxe foofu ci jotaay ñetteel ba moo di euh, yàlla daf lay tudd ci boppam maanaam wa zakara allahu bi man indahu yàlla dafay oolu moom it assemblée ba ñëw mu ne leen diw doomu diw wax lu baree bari ci yow ñeenteel bi mooy malaaka yi dañuy wàcc foofu maanaam malaaka yi dañ fay encercler te bu ñu nee malaaka day wàcc barab sàngam rek dafa am lu muy firi mooy malaaka lumière la malaaka lu ñu gën bari ci barab barab ba day gën a leer te leer moom mooy substance bi nga xam ne moom la ruux di dunde kon loolu euh, dafa am lu muy firi tey ku amoon xew invité nit ñi ñu ne xew wa de yow lafa fa ñëwoon kenn xamul mu toll ñu naa ñu ne lu mat deux cent milliardaires ñëwoon nañ ci xewu waa ji xam nga mën ngaa rafet njort ne waa ji am na ci dara du dëgg malaaka yi kuy tudd yàlla ñu wàcc fa te ñoom leer rek lañ am war nañu xam ne yow jële nga ci dara euh, wa zikru mu ne wa huwa lil insaani shaagilun an il ghibati wal wan namimati wal kadibi wa kullu batilin Cheikh Omar nee na waxuma sax dara man yiw bi nekk ci zikr dëgg la waaye bokk na ci njariñal zikr mooy jamono ji ngay zikr xawma xawma lu xew waaye musal na la ci ci jëw musal na la ci fen ndax ki toog grand place kooku mënul noppi rek ci xoole bu yoree kurusam nag di tudd yàlla ku wax mu ne la jombul mën naa wàññi bari na koo xam ne dafay bëgg ñëw pour jëw nit boo yoree sa kurus ne rek mu découragé na yow kenn mënula wax ak yow jug dem kon yow bu dul dara sax musal gim lay musal ci jëw ak fen ak euh, di wax lu sa yoon nekkul loolu rek doyoon na ngënal mu ne wa zaakiru laa yashqa bihi jalisuhu wa majlisuhu laa yakunu alayhi xasratan yowma alqiyaamati boo na ci ngen ngëneelu zikr ba tey yonent bi dafa ne toogaay bu nit toog lu toogaay ba yàgg-yàgg wala mu gàtt-gàtt mu toog fa ba jóge fa te tudd fa yàlla toogaay boobu yowmal qiyaamati perdition lay doon ci moom pertement bu rëy lay doon ci moom ndax dina ne ay bu démb doon tey deux heures de temps yi ma amoon barab sàngam moo tax may digal même ñi nekk ci université bi wala ñi nekk ci seen classe toog fa ne dañuy jàng te lañuy ñuy du yàlla jaadu nañu toog ba yàgg tudd yàlla ay baat subhanallah walhamdulillah wala ilaha waxuma yor cours nag ci classe beeg yu mel noonu waaye rek ñu tudd yàlla ci seen làmmiñ au moins pour jotaay boobu bañ a niil ki toog itam ci garam place am bu toogee ab diir na jékki-jékki tudd tudd ay baatam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billah loolu mooy valoriser toogaay bi ki dem marché ba itam na jékki-jékki tudd fa yàlla ki nekk ci kaar bi wala oto bi wala métro bi na tudd yàlla ki nekk ci toolam na fa tudd yàlla maanaam foo mën a nekk donte jotaay boobu jotaayu liggéey la moo xam maçon la menuisier Euh, wala wala tailleur bi wala mécanicien bi électricien bi ku mu ci doon rek fa mu nekk na fa tudd yàlla gis nga boo tuddee yàlla rek valoriser nga foofu nga nekk ba jotaay boobu ëllëg du doon pertement waaye ki nekk conférence ba wala gàmm ga wala jàkk ja kooku jotaay yooyu yàlla tax ñu koy ñu koy organiser kon jàpp nañ ne dina ko fa tudd waaye même yeneen jotaay yi nga xam ne du turu yàlla sa liggéeyukaay la tudd fa yàlla parce que day doon ëllëg yowmal qiyaamati njariñ yeneen ci bi nee na bépp assistance bu ñu am moo xam atelier la moo xam séminaire la moo xam lu mu mën a doon ñu organiser ko ba mu tas te kenn tudd fa yàlla jotaay boobu pertement lay doon fardo lay doon sax ci borom yowmal qiyaamati bu fa defee bàkkaar nag mu gën a raw euh, loolu nag zikrullah da koy dindi bokk na ci njariñal zikrullah ba tey Cheikh Omar sard bi muy def te rafet lool mooy kii tudd yàlla ëllëg yowmal qiyaamati euh, maanaam maanaam ku toog ak moom rek du perte maanaam dama bëgg a wax ne ay nit yàlla buñ toogoon di tudd yàlla benn bandi romb fa dégg son bi ak zikr yi mu neex ko mu toog di leen déglu di leen déglu ba jaare fa nelaw ñu laal ndekete deena loolu rek toogaay boobu mu toog foofu ba dee mën na ko yóbbu àjjana directement ndax ñoo ku nekk ak ñu texe faw nga texe zikrullah tabarakallahu moog parfum bu neex ñoo yam xam nga parfum bu neex ki ka moom euh, mën na ko parfum woo sottee kooko ba ba mu jeex ne du ci may kenn waaye na fexe nag ba bu mu toog nit ñi bu toog nit ñi moom <laughs> li mu ciy xencu rek ci lu neex moom la ñëpp ci xencu rek moom kay da koy sottee ko pare tëju sa néeg waaye boo xasee génnee ci nit ñi rek yaag ñëpp ciy bokk yam dafa nekk sa yére rek waaye yaag nit ñi yére ci yem boo toogee itam di tudd yàlla même ku toog sa wet te tuddul yàlla sax effectivement da ciy jariñu moo tax am na ay nit ñu baax ñoo xam ne di nga leen gis bu xadaratul jumaa jotee euh, donte duñu ay tiijaan mais dañuy ñëw ci fu ñuy xadara toog fa di tudd yàlla comme ñëpp loolu mooy parfum bii ma lay wax faw mu xeeñ la donte sotteewoo ko euh, wa zikru ma al buka sababun li nayli zilli al arshi al zalil wa man shagalahu zikru llahi taala an al masala utiya afdalu ma yuti alsaa'iluun wa huwa giraasu aljinaani wa sababu alcitqi min alniiraan wal aman min annisyaan wa huwa nuurun lil abdi fi dunyaahu wa qabru wa qabri wa nashrihi wa manshuru alwilayati wa huwa yurqi alabd ida rasaxa fi lqalbi wa yajmacu ala aldakiri qalbuhu eh, qalbahu wa yuqarribu min min qalbihi alaxira wa yubcidu an aldunya wa yastaciddu lima huwa aatin wa yuthmiru almacrifata walwilayata waltawfiqa walximaayata wa yacdilu cunqa eh, alriqaab wal jihaad wal qatl fi sabilillahi wa infaaq alwaraqi waldahabi wa huwa rasu shukr wa yadxulu aljannata wa yuzhibu min alqalbi alqasawa wa dikru shifaun lilqulub wa huwa aslu muwalaati illahi walgaflati walgaflatu aslu muaadatihi wa huwa rafiun niqam wa huwa rafiun linniqami wa jalibun linnicami wa mujibun lisalaati illahi taala wa malaikatihi alayka wa majlisu dikr riyaadul jannati wa yubaahi allahu taala malaa'ikatahu biddaakiriina fi samaa wa huwa yanuubu an saa'iri al a'maali wa yuqawwi lil jawaarixi wa yaftaxu muxliqa al abwaab muxlaqa al abwaab wa huwa amnun wa najaatun wa sayfun wa huwa say wa huwa sababun li tasdiiqi rabbi li abdihi wa dikru saddun bayna bayna al abdi wa bayna an naar wa naarun laa tabqa illa ajza annabitatu min alfudul walxaram wa yuthabitu alanwaara fi lqulubi walmalaikati yastaxfiruuna lilcibaadi ida lazim lazim ida lazimuuhu walbiqaacu waljibalu tatabaaha bihi ida marra biha wa huwa shiimatu almumin an wa lahu lazzatun ajallu min lazati almatmuaati walmashrubaati wa wajhu aldakiri wa qalbuhu yuksaa fi dunya nuuran wa nadratan wa fi alaxirati yuksaa wajhahu ashaddu bayaadan min alqamari wa huwa yarfacu wa huwa yarfacu ila aala aldarajati waldakiru xayun wa in maata walgaafilu mayitun wa in kaana xaya wa yurisu riya min alatashi inda almawti qaala taala يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال اذكروا اذكروني أذكركم وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إلى غير ذلك من الآيات wa rawa albuxaariyu anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal alaa unabbi'ukum bi xayri a'maalikum wa azkaahaa wa azkaahaa 'inda malikikum wa arfa'ihaa ilaa daraja fi darajaatikum wa xayrun lakum min infaaqil dahabi wal waraqi wa xayrun lakum min an talqaw aduwwakum fatadribuu fatadribuu a'naaqahum wa yadribuuna a'naaqahum qaaluu balaa qaala dikrullaahi wa rawaa ibnu Hibbaan wa Ahmad wa abu ya'la wal hakim wa qala sahihul isnad isnad marfu'an aksiru min dhikri min dhikrillah hatta yaqulu majnunun wa rawa ibnu majaha wa ibnu hibban fi sahihihi marfu'an anna allaha azza wa jalla qala ana ma'a abdi idha huwa dhakarani wa taharrakat bi شفتاه وروى الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وابن ماجه قال صحيح الإسناد أن رجلا قال يا رسول الله شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتثبس به قال لا يزال لسانك رطبا من mu ngi sërdewaat njariñal zikr xam ne yi muy wax yëpp ay aaya lay junj ak mais mu tënk ko nii su paree soog a ñëw ci détails yi zikrullahi subhanahu wa taala te muy fàttaliku yàlla di yëg yàlla di tudd yàlla dafay jur ci jaam bi mu dëkk ak yàlla ci keruk arsh yowmal qiyaamati euh, yonent bi wax na ne sallallahu alayhi wa sallam ci xadis euh, sabaatun yudilluhum llahu fi dilli arshi yowma la dilla illa dillu juróom-ñaari nit yàlla dina leen keral ci keram googu nga xam ne bés boo bés penc boobu foofu rek moo fa am keppaaru gu ñu mën a féexloo kamu ca mujj tëj mooy wa rajulun zakara allah xaaliyan fa faadat aynaha mooy nit koo xam ne day tudd yàlla ba rongoñ yi di tuuru ngir jëmmi yàlla kooku yowmal qiyaamati yàlla dina ko keral kon kuy tudd yàlla yàlla dalay keral yowmal qiyaamati bokk na ci itam képp koo xam ne da saxoo tudd yàlla ba fàtte ñaan say soxla xam nga ñu bari dañuy am bii euh, soxla man euh, mas na ma yitteel lool yàgg na ma yitteel lool depuis bi may jàng mooy ndax nit danga war a toog yor sa kurus di ñaan say soxla wala danga war a toog yor sa kurus di tudd yàlla euh, ndax yàlla may ma lii yàlla may ma lii yàlla lii laa bëgg yàlla lii laa bëgg di nga ñaan ba ñaan loo xam ne ni doo xam ne musiba la ci yow te doo ko yëg ndax ku mënta xam li xew ëllëg mënoo xam li ngay ñaan yëpp ban njariñ la am ci yow loolu tax ñu wax ne ñaan ci boppam rek risk la ndax di nga ñaan xam nga kuy ñaan di ñaan ba ñaan jaan joo dugal ci sa xam nga bu jaan di duggee bootul lu mu fa def nag ci dégâts yow yaa ñaanoon jaan ñaan yi am na ci yoo xam ne moo raw loolu euh, yow ndax yaa ngi ñaan alal yaa ngi ñaan alal te alal dafa am nu muy mel dafa am nu muy soppee nit dafa am nu muy toroxalee nit dafa am nu muy mbugalee nit dafa am ñoo xam ne ni alal a tax ñu dugg a kasu am na ñoo xam ne alal a tax ñu siiw ba ñu leen di wax lu bon lu ne am na ñoo xam ne alal tax ñu dem safara am na ñoo xam ne alal a tax seeni mbokk bàyyi leen am na ñoo xam ne et cetera kon booy ñaan alal te yi ci aju yëpp mënoo koo xam ba musu ci kooku itam jafe-jafe lay doonat yeneen bi nag ne képp koo xam ne sa temps yëpp danga nga koo def ci tudd yàlla te bàyyi ñaan say soxla yàlla mi xam li gën ci yow moo lay jox lu gën ci li nga bëggoon a ñaan looloo tax euh, kon dafa mel ni sax ci tudd yàlla dafa xaw a sax gën toog di ñaan say soxla ndax comme soxla yi dafa am ay risque te mënoo koo xam léegi del tudd yàlla rek sax ci te def ko ngir yàllay tax euh, bis boo soxlaa dara yàlla mi nga xam ne moo la gën a xam sa bopp dana xool la gën ci yow mu jox la ko ndax bés bu jot nga gis jàmm mu am lu mu ñaanul woon bis bu jot yàlla may la loo xam ne ñaanoo ko woon kon moom mi xam li gën ci yow bàyyi kook sa bopp Cheikh Omar nee na ba tey eh, tudd yàlla ak njëmbët la ci garab bi àjjana eh, Seydina Ibrahim alayhi salaam bi yonent bi riñaane dafa nuyu yonent bi ne ko nuyul ma saw xeet nee leen na annal jannata qi'aanun wa giraasuha subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah Seydina Ibrahim dafa nuyu yonent bi ne ko nuyul ma sa xeet nee leen àjjana pàkk la boo xam ne ni tool la boo xam ne irriguéwuñu ko dañ ko fee bàyyi rek teg ko fi euh, defuñu fi ay plantation léegi dañ ko fee bàyyi rek mu doon benn pàkk léegi nag ku fi bëgg garab ne ko na wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim am benn riwaay bu ne laa hawla wala quwwata illa billah boo ko waxee rek jëmbatal nañ la benn garab garabu fur foofu boo ko waxoon ci bis bi téeméeri yoon jëmbatal nañ la téeméeri garab boo ko waxee junni yoon jëmbatal nañ la junni garab boo ko waxee millions yoon jëmbatal nañ la millions garab bu ko defee nag malaaka yi di la ko fa roosel ba ba ngay ñëw foofu fekk ma wax ne nag kuñ ne ñu ngi lay jëmbatal garab àjjana mooy yow di nga dugg àjjana kon ndekete foo toogee di tudd yàlla yow yaa ko yëgul waaye ñu ngi lay jëmbatal garab nga xool nag jëmbat garab fii ci àdduna ak jëmbat garab ci àjjana ni ni mu sore ndax fii ku doon jëmbat garab di nga taxa tilim sol ay bot lu ne nga dugg ci dem ci poto poto bi pour du jëmbat ay garab boole sotti ci ndox gis nga temps bi mu lay jëlal benn garab gi mën na laa jëlal quarante cinq minutes wala lu ko ëpp pour mu baax nga demaat jëmbat beneen nga demaat jënd jëmbat beneen garabu àjjana nag 30 secondes sax bari na ci ñu jëmbatal la boo xam ne màgg na ci saa si toog di la xaar kon bés bi rek mën nga cee jëmbat nangami junni garab bu dee fii nag euh, gis nga scénario bi ci amee kon ndekete tudd yàlla xeet la ci jëmbat garab kon mbooloo bu ñu daje woon ne kaa leen ñu jëmbat garab yor seen course di tudd yàlla ko xamul dina ne waaw ñii dañ def wala fekk dañuy jëmbat garab mais du garabu fii garabu àllaaxira te garab yooyu du dee euh, du ñàkk fruit fii sax dinga fi jëmbat garab yoo xam ne du am tabaarakallaahu njariñ lu bari waaye fële moom euh, noonu lay mel euh, Cheikh Omar nee na tudd yàlla dafay jur yàlla goreel la ci safara ndax nit itam même sa xarit rek di ngeen jaar foo xam ne séq loo xam ne boo demee sax bañ na la euh, nangam nga ko war a def mënul ñàkk nga ne diw daal vraiment fi ñu jaar rus naa daal di dem di ko fayeku ji bor daal diw daal ngor gi ma ji rus naa daal di dellu di ko laaj naan kaan na ma delloo sama kër ndax daal fayatul location et cetera gannaaw nit ak moroomam rek ñuy séq teraanga ba nga rus koo fayekooti loo moom massa yàlla ak jaamam boo baree loo koy tudd moom ci boppam grandeur moo ko dul may mu yóbbooti la safara te certes boo watul sax def nga lu la fa yóbbu waaye tudd yi bari na bari goo xam ne daal moom yàlla euh, rus na daal di la yóbbu safara beneen bi ci des moo di sécurité la ci fàtte xam nga yàlla wala takunu kallazina nasu llaha fa ansehum anfusahum yàlla nee na bu leen bokk ci ñi nga xam ne dañoo fàtte yàlla te comme wax naa la bi may tàmbali ne la tudd yàlla mooy contraire fàtte xam nga oubli moo fi am ak rappel léegi nag ñoom ñaar ay ay ay safaan lañu kon kuy tudd yàlla rek fàtte woo yàlla te yàlla loolu la doon tere Cheikh Omar nee na wa huwa nuurul lil abdi fii duniyaahu nee na itam lumière la ci àdduna wax nañ léegi ci gannaaw ne booy tudd yàlla dangay ngay lucide nite da ngay dund dund gu simple dund gu rafet dund gu baax maanaam sa àdduna yëpp ci lumière ngay dund boo dee duggee bàmmeel itam nga fekk fi mu mel ni dañ la taalal ay projecteur te gis ngeen nit ni mu ragalee lëndëm boo toogoon rek léegi courant coupé sa àdduna yëpp day tukki yaa ngi toog rek di xool lampe bi kañ lay tàkk te fii àdduna la te courant bu coupé jàmm ak salaam rek la waaye biir bàmmeel boo fa ñëwee fekk fa lëndëm gu raw courant coupé car euh, loolu rek metti na nga nar ci dund nag ay siècle boo ci tegaatee nag ay jëmm yoo xam ne nii seeni bët yi day génn safara bu ñuy wax ak yow ay ferñent di génne te muy malaaka yi nga xam ne dañoo ñàng ñàng ba xool leen rek doy na mbugal xool leen bu ñu la kuy sa borom tontu yeneen ti bi nee na dañ lay dóor benn mbold rek bu doon tey dañ lay mbéj mbéj moo xam ne soixante-dix mètres di nga ko surux ci suuf génn génnaat xam nga ne kooku mbejam moomu foor na torop loolu boo ko booleeg lëndëm nga ak tiitaange gi wax dëgg yàlla wax dëgg <laughs> loolu dalul xel kon tudd yàlla daf lay musal nag ci loolu nga dugg bàmmeel fekk ay projecteur ñu taalal la ko fu ne nga gis jëmm yoo xam ne ñoo gën a weex meew ñëw akolaat la gën a xeeñ parfum ne la euh, axil soyez les bienvenus di la ree ba nga mel ni da leen xam soixante-dix ans am na ci ñoo xam ne nii ñu ngi yor sa melokaanu papa wala sa melo euh, sa melokaanu papa ñi yor sa melokaanu yaay nga ne ah yaay da nga ñëw fii papa da nga ñëw fii te fekk du sa yaay du sa papa ay malaaka lañ mais dañ bëgg a dalal sa xel wala ñu fekk sa ki nga gënoon a bëgg ci àdduna muy sa xarit bi nga xam ne mënoo ko muñ bëccëg mënoo ko muñ guddi moom moo lay teeru ci bàmmeel wala bu fekkee nit yàlla nga soppoon ñoom ñu jël melokaanu kooku nga gis ka ne ah waaye kon ndeke ndeke da nga ñëw fii ñu ne déedéet fekk yooyu yëpp yàlla moo bëgg a dalal sa xel loolu tur yàlla moo koy def tudd yàlla mu ne wa nashrihi keroog yowmal qiyaamati itam bu ñuy bu ñuy séddale bu maanaam buñ dekkee buñ dekkee euh, maanaam zikrullah moom mooy doon sa avocat comme niñ ko waxee euh, di dox di dox léeg nga bëgg a dem benn dëkk am ku la gën a xam dëkk ba wala ku la fa ku fa dëkk comme man bi may dem dëkk sàngam bu ko defee waa ji mooy ñëw jël say papier di dem ak ñëw di dem ba ubbil jël bu dee passeport nga amee wala visa wala kii moom mooy dem ñu tampel la ko ba lépp baax mu ñëw ne la kaay jàll zikr yi ngay zikr boo demee yowmal qiyaamati li muy raklu raklu doo ci yëg dara ndax moom mooy gérer boobu protocole kon wa manshurul wilaayati zikr moom mooy may nit wilaaya moom moo lay jox wilaaya moom mooy yéegal jàmm bi itam ida rasaxa fi qalbi ba nga tabaarakallahu boo dëggoo ci sa xol ci bëgg yàlla dangay dem ba zikr boobu maanaam mooy dame sa xol ba yàlla kese moom moo ciy nekk euh, gis nga képp kuy zikr tur yàlla Cheikh Omar nee na yàlla dafay boole sa xol mu nekk benn takk rek xam nga nit ku ku dul zikr dafay distrait euh, man nan laay def sama avenir man nan laay def sama étude yi bon nan laay def sama formation professionnelle bi ma defoon bon nan laay def sama CV bi am naa lii maa ngi nii bon am naa ñeenti emploi ban laa ci choisir bon nan laay def sama mariage bi nan laay def sama kër gi nan laay def sama oto bi nan laay maanaam yu dul jeex ci ay problème danga koy am mu ñëw taxaw rek boo waree tëdd téeméeri junni soxla ñëw taxaw ba pare di la nelaw boo deful sa choix da ngay alcoan boo deful sa choix da ngay yàq sa avenir fekk doo xam ne avenir yàllaa ko yore léegi nag zikr boobu dafay enlever loolu di dindi stress yooyu di dindi ennui yooyu di ko dindi ba yow doo deseeti ku dul yàlla kese bu boobaa da ngaan yàlla jox naa la sama bopp loola neex rek defal ci man loolu moo tax zikr ku koy def doo doo stressé wu yonent bi sallallahu alayhi wa ba tey wax na ne zikr dafay sorel nit tabaarakallahu ci maanaam maanaam dafay dafay gorel nit ci safara euh, gis nga nit yonent bi nee na képp ku gorel jàmm yàlla dina la fay gorel sa baat ci safara waaye itam boo amul loo gorel jàmm booy def jun bis boo boo xëyee def junni laa ilaha illallah ngoon gi nga def ko wala subhanallah ngoon gi nga def ko loolu day mujj soppandiku yonent bi nee na ku ko wax fukki yoon rek subhanallah alhamdulilah laa ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim ku ko wax fukki yoon wala téeméeri yoon fa ka annama eh, ataqa raqaba dafa mel ni goreel nga jaam te ku ne xam na ne ku goreel jaam eh, yàlla goreel la ci safara kon yooyu ngay xeeb bis bu jot nga wax ko téeméeri yoon du la jëlal sax benn temps et pourtant ëllëg di nga gis ni utilité bi toll bu ko defee jaam bi daf ci war góor góorlu di bari lu muy tudd yàlla ngir mu mën a mucc ci safara euh, dafay jegal itam xol ëllëg yowmal qiyaamati ci borom bi subhanahu wa taala di la soril ci àdduna zikr dafay def ci yow benn xeetu ragal yàlla goo xam ne da ragal àdduna ba pare bëgg àllaaxira nee na wa yusmiru almaarifata wal wilayata wa tawfiq wal ximaaya nee na itam dafay jur ci nit xam-xam bu mu jàngul muy xam-xamu maarifa bari na ku xëy rek am fatxul akbar di wax ci kéemaanu yàlla lu kenn xamul fu mu ko jële te jàngul boo nekk CV xamul dara waaye buy wax ci yàlla da ngay waaru ci yàlla yow mi jàng sax bootul dina la jàngalaat loolu leer leeru zikr moo koy def ci nit mooy may nit itam wilaaya mooy xaritoog yàlla mooy may nit tawfiq mooy sa lépp yàlla barkeel ko euh, dëppale ko mais itam dalay may lumière boo xam ne dalay sécuriser parce que dafa am ay invisible y compris diable satan ak yu mel noonu ñoom doo leen gis te ñoom ñu ngi lay gis à tout moment man nañ la pénétrer mais zikr boobu lumière boobu moo lay sécuriser ba duñ mën ci yow dara wa ya'dilu itqa riqaabi wal jihaad mooy équivalence yi itam di zikr képp koo gis mu toog di zikr tur yàlla équivalence yor jaasi la di xeex ci yoonu yàlla maanaam képp ku naan xare badar moo fekkoon ak xunay nekk nangam dana ànd ak yonent bi am na équivalence am mooy toog di tudde yàlla ah nga ne waaw bee moo gën a metti nga ne non sacrifice la rek sacrifice de temps et de sang sacrifice de temps boobu ñoom ndax wax nañ ne xare xare badar maximum trois heures de temps matu ko woon yow mi toog nag quatre heures de temps di tudd yàlla ñoom cause bi taxoon ñuy xeex yow it cause boobu moo tax nga toog benn la dañu am chance su ànd ak yonent bi te xëy na yow it boo sellalee man nga am yiw ba euh, de même que équivalence su tabaarakallahu ñu rey la ci yoonu yàlla la wala ngay rey ci yoonu yàlla ndax yaa ngi rey sa temps yow itam ndax quatre heures de temps bi nga toog di kër amoon nga leneen loo ko mënoon a passé kon sacrifice nga def wa infaqil waraki wa dahabi maanaam ku ne man de bu ma amoon alal dinaa tabax jàkk dinaa tabax ay daara dinaa def lii dinaa def lii yonent bi nee na boo toogee di tudd yàlla ay heure moo gën jël sa alal di ko dépensé parce que yàlla nag turam yi fokk na ko lool war a su sukri moom mooy reconnaissance bi gën a mag reconnaissance principal moom mooy toog di tudd yàlla ay yàlla mënuma laa fay yàlla li ma defal yàlla ni ma yonent bi jarul a lim toogal rek di ko tudd foo toogee di ko tudd mu gis ne yow yaat moom moo tax nga bàyyi sa soxla yëpp di ko tudd rek mel na ni am nga reconnaissance fay nga ko te itam wa yudxilul jannata wa yudhib min al qalbil xasaawa bari na itam ku dugg àjjana tudd yàlla moo la dugal àjjana d'ailleurs sax waa àjjana ku dul maanaam maanaam ku dul dugg ku dul tudd yàlla du fa dugg inna allah haramaha alal kafirin euh, kon àjjana koo gis mu dugg fa rek tudd yàlla bokk na ci li ko fa duggal xol bu wow itam jullit bu dul tudd yàlla xolam day wow comme ni ñu waxee ne dafa doon xomaat sànq noonu itam la xol bi di wow te mooy yooyu ma doon wax léegi ci gannaaw booy tudd yàlla nag Euh, wawaayu xol boobu dafay dañ ci yow euh, wa dikru shifaun lil qulubi de même que dafay stabiliser cardiaque rythme cardiaque koo dégg maan sama xol bi day metteeg sama xol bi day feebar ak man kay sama cardiaque bi normalul dadul tudd yàlla ndax yàlla du wax lu lu dañ yàlla moo ne ala bi zikrillahi tatma innul qulub ci tudd yàlla la xol di stable ci ci tudd yàlla la xol di dale kon yow mi am rythme cardiaque bu normalul del bari looy wax laa ilaha illallah del wax subhanallah del tudd yàlla soo paree di ko raay ci xol bi dangay ngay yëg ne léegi dafay stable kon dafay saafara xol ci feebaru jàngoroy iñaan jàngoroy bon jàngoroy ree nit jàngoro yooyu nga xam ne amradul qulub la euh, zahiriya wal batiniya yooyu yëpp da koy faj ni muy fajee rythme cardiaque noonu itam lay fajee mboolem bakkaar yu bon ak jikko yu bon yi nga xam ne nii mu ngi ci sa biir xool te neexu la wa huwa aslu muwalaati llahi taala wal xaflatu aslu muaadatihi nee na toog fàttaliku yàlla presque mooy cosaanu doon xaritu yàlla tey ku xamoon sa benn xarit boo xam ne deux minutes cinq minutes mu oola téléphone ne la waaye dama la namm waay ngeen waxtaan mu ree coupé jékki-jékki mu woowaat la bu yàggee da kii bëgg na ma de yàlla itam booy def minute bu jot nga woo ko di tudd tudd ay turam day yëg ne bëgg nga ko waaye itam contraire bi boo toogee ay weer ay weeri weer doo tudd yàlla loolu itam lum la jural ci nooneel rek xamal ne yaa ko liggéey dafay jur yàlla noonu la ndax yàlla dafa bëgg jàmm bu koy tudd wa huwa rafiun li niqam wa jaalibun li niam dafa benn doon benn kutoo double tranchant euh, benn paaka boo xam ne paaka ñaari boor la boo baree looy tudd yàlla daf lay yëkkatil say daraja boo baree looy tudd yàlla daf lay wàccil ay problème ak ay coono maanaam kon say coono day gën a néew say problème say bonheur dafay gën a yaatu wa huwa mujibun li salaatillahi wa te itam nii ngay jullee eh, kaañ julli tisbaar kaañ julli tàkkusaan boo baree looy tudd yàlla yow it noonu la yàlla jullee ci yow ak ay malaakaam dafa fekk nag ñun eh, julli yi ñu min eh, moo di li xam après kabar di rukkooke sujjóot yàlla du jullee noonu waaye yàlla dina julli ci képp ku koy tudd te mooy jéggal la yokk say martaba balla say bakkar bindal la yiw bu bari te noonu la ko yàlla yi santaane itam ay malaakaam pour ñu koy defal ñi koy tudd yàlla ne na ana jëlisu man zakarani bu boo toogee di ma tudd dama lay tudd toog ak yow ba ba ngay pare sant itam malaaka yi ñu toog di la tudd ba ba ngay pare xam nga ni lii lii ne jaroon na lu ne wa majlisu dikri riyaadul jannati wa yubaahi allahu taala malaikatu bi zakirin fi sama Euh, Cheikh Omar nee na radiallahu anhu jële ko ci xadiisu yonent bi fépp fu ñuy toog di tudd yàlla yow yaa ko xamul waaye foofu benn daggit la ci àjjana gis nga jàkka joo gis jàkka joo gis ñu toog fa di tudd yàlla jàkka jooju palaasu àjjana la zaawiya boo gis ñu toog fa tudd yàlla foofu palaasu àjjana la et cetera boo leen toogee daayira itam di tudd yàlla foofu espace boobu palaasu àjjana la kon euh, fu ñuy toog di tudd yàlla foofu jardin la ci jardin àjjana yi ba pare yàlla day bége ak ay malaakaam ci ñiy tudd yàlla ni nga xamee ne équipe day fubal supporters yi toog ci kaw stade bi euh, di yuuxoo ko nangam nangam yàlla lahul masalul ala waaye noonu lay toogee ci kaw naan xool leen sama gaayale ñu ngi nee toog di zikr ñu ngi nee toog di xadara ñu ngi nee toog di wasifa mu mel ni malaaka yi dañ am victoire di tëb di dal ndax bég loolu xam nga ne boobu sax rëy na euh, wa yuqawi aljawaarix wa yanubu an saairi al amal dañu wax ne zikrullah Cheikh Omar nee na moom rek lañu xam muy jaamu yàlla goo xam ne mën naa remplacer mboolem xeetu jaamu yàlla yi te loolu xam nga ne koor koor rek la tudd euh, maanaam aj aj rek la tudd waaye zikrullah bi maanaam maanaam jaamu yàlla gi nga xam mën naa remplacer yëpp mooy koor moom mooy zikrullah ndax euh, gis nañu ba tàyyi ku dëkk ci zikr ya nga matadi woon yépp yàlla matalal la ko ci barke zikr bokk na ci njariñal zikr dafay dëgëral ay cir maanaam day may nit wiir te loolu ñuy zikr xam nañ ko ndax nee naa la rythme cardiaque mooy may nit ak wir léegi nag kii zikr xolam day wir bu ko defee nag yaramam yépp wir moo tax ñuy ñuy wax ne Euh, mag moo xam ne dafay tudd yàlla moom mooy gën du naax du du du du fàtte du dof du dara au contraire du màgget itam au contraire nag ki nga xam ne nag tuddul yàlla dundam yëpp da ko fo bu amee 60 ans rek doo ko du deseeti bëñ xel mi commencé dem mënatu la dox doo xam lu muy nuru loolu ñàkk tudd yàlla moo koy def waaye booy tudd yàlla gis nga ba tey mag ñoo xam ne xaw nañoo am téeméeri at ci tariqa bi ku mel ni sëriñ alxaaj abdul aziz dabbaax dem na ba am quatre-vingt-treize ans di waxtaan ak nit ñi ci yàlla te da nga naan xanaa tey la xel mi gën a ñaw gis nañ sëriñ abdul aziz al amin dem na baam am quatre vingt ans di waxtaan ci yàlla euh, ak ñu mel noonu euh, nga gis ne loolu zikr daf koy def dina leen may wér waaye dina leen may benn lucidité wa yaftaxu muxlaqal abwaab koo gis mu ne sama bunte yëpp a tëju dadul zikr Cheikh Omar nee na kuy zikr sa bunte yëpp ay ubbeeku yi tëju woon yëpp ay ubbeeku te nee na am nun la sécurité la képp ku am bëgg am sécurité ci safara ëllëg na bari lu muy tudd yàlla wa najaatun mucc la itam euh, wa sabqun ak jiitu la itam nga xam ne dangay jiitu tabaarakallahu ëllëg te moom mooy tax yàlla dëggal la euh, maanaam dalay may crédibilité ci yàlla wa dikru saddun bayna al abdi wa bayna an naar dañ wax ne dikr tudd yàlla tudd tudd turu yàlla benn mur la buy dox entre jaam bi tudd yàlla ak safara maanaam même même sax boo defoon ay bakkaar yu war a tax nga war a dem safara zikr boobu mooy constitué benn mur boo xam ne bu métal la bu dëgër mooy dox sa digganteeg safara doo mën a dem te ku demul safara moom àjjana nga jëm yooyu euh, gis nga itam nit buy dem buy jéggi siraat am na ñoo xam ne ni du ñu am yiw bu doy bu leen war a mën a jéggil siraat waaye bu fekkee nga am zikr zikr boobu moom mooy mooy mel ni essence boo xam ne daal dañ ko defaat ci sa oto nga gën a mën a daw am na ñoo xam ne dañuy jéggi siraat bàkkaar tax euh, seen seen loxo euh, euh, machine bi jël ko dagg ko wala seen tànk dagg ko yonent bi wax na ko am na ñoo xam ne seen lenn ci seen cir yi day des siraat waaye booy bari looy tudd yàlla loolu du la dal yow ancee ngay dem àjjana yàlla ñu ko yàlla defal wa yuthabitul anwaara fi qulub wal malaikati yastaghfiruna lil ibadi dafay dëgëral itam lumière ci xol bi malaaka yi itam fu ñu toll dañuy jéggalul yàlla malaaka yi dañu am ñoo xam ne dañoo yor benn liste ci ay jullit euh, di tudd yàlla ne diw doomu diw yàlla yàlla nga ko baal diw doomu diw yàlla yàlla nga ko baal loolu nag ay millions d'années mën nañ toog di ko wax te yàlla du delloo seen ñan te loolu ñi ñu ciy bind mooy ñi tudd yàlla di zikkiru yàlla fu di fàttaliku yàlla fu ñu toll euh, dañ wax ne isa wal jibaalu tatabaaha bihi ida marra gis nga jullit buy doon buy tudd yàlla dëkk ci bu romboy ci benn montagne montagne bi ci waxin day kobas moroomam nekk gis nga sama waa ji jàmbaar la maanaam day bége kuy tudd yàlla nitu yàlla garab gu mu romb garab gi da koy bége di ko nuyu même bu ko déggul euh, suuf su mu romb euh, suuf si da koy bége nan waa jaa ngi nii waay mel ni rek roi des arènes buy jaar fenn ni ngay gis ñu koy dar noonu la euh, montagne yi ak garab yi di bégee ci ku euh, kuy tudd yàlla bu leen rombe mu ne wax wa chimatul mumin mooy melokaanu jullit yu baax yi moom tudd yàlla walla lazatun ajallu min lazati lazati l matmuaati wal mashrubaati wa euh, gis nga zikr dafa am bànneex dafa am plaisir boo xam ne moo dàq plaisiru lekk ak naan te kuy tudd yàlla rawatina fajar di ko xam dangay ngay béga béga bég kontaanu kontaan te doo xam lan moo la kontaan loo fekk lumière bi wàcc ci sa ruux di wàcc ci sa xol di ko raxas moo dindi stress yëpp fa tabarakallahu wa qalbuhu yuksa fi dunya nuuran wa nadratan wa fi alaxirati yakunu wajhu ashaddu bayaadan min alqamari wa huwa yarfacu ila ala darajati wa daakiru xayun wa in maata walgaafilu mayitun wa in kaana xayan wa yurisu riya min al atashi inda al mawt gis nga Cheikh Omar ba tey mu ngi tegle rek njariñ li nekk ci zikr te lii wax dëgg yàlla xanaa ku bëggul woon sax zikr war nga ko bëgg ngir sa intérêt bopp nee na képp kuy faral di zikr daf lay solal yëre leer ci àdduna solal la yëre verdure ak nëtëx ci àllaaxira ku ne xam na ne nit ku am alal di dund ak koo xam ne amul dara balaa añ wër wu dëkk bi yépp pour am lu mu lekk ñaar ñooñu seen teint du ñu niroo ñaar ñooñu seen yaram du ñu niroo da gis kële dafay nëtëx nga gis kii yaram bi yépp dafay songoon wow nee na képp kuy tudd yàlla itam Cheikh Omar nee na sa yaram yowmal qiyaamati noonu lay nëtëxe ba ku la gis rek xam ne kii boroom alal la boroom daraja la nee na sa kanam itam mooy gën a weex euh, maanaam jant bi ak weer wi parce que lumière bii ngay zikr xam nga ñu ngi naan lan tur yàlla lumière la mais yow gisagoo lumière bi ndax gisagoo lu leer waaye loolu yëpp dañ ëllëg yowmal qiyaamati dañ naan kan kon tayyi nag ci sa kanam gi ba yow boo xoolee day mel ni projecteur loo ko gën a baril nag foofu sa gën kanam gën a leer sa sa daraja gën a yokku nee na dafay yëkki ay daraja te nee na képp kuy tudd yàlla dafay dund dafay dund xolam day dund ni nga xamee ne képp kuy ñàkk tudd yàlla euh, xolam dafay dee nirale woon na ko léegi ak suuf soosu nga xam ne dafa bekkoor ak euh, suuf soosu nga xam ne am na ndox ba verdure bi génne te lii Mawlana Cheikh Hadj Omar nettali introduction la ci lim bëgg a jàngale ci utilité bi nekk ci zikr bul foog na nag moom ay waxam la déedéet yëpp ay xadis la mais moom yàlla may na ko xam-xam boo xam ne xabk la def mooy dafa tënk dafa maanaam dafa tënk ay téeméeri téeméeri téeméeri xadis ak ay riwaayaat ak isnaad ya aju mu xabk ko tënk ko ba def ko muy son bi nga doon dégg léegi euh, mais bu duggoon ci détails yi kooku dana doon téere lëmmu boppam euh, loolu nag la doon présenté utilité wu wala njariñu wala grandeur u zikr léegi nag alquran ku ne xam na ne maanaam l'islam ku ne xam na ne amoo droit saxal ci dara xataa euh, ya'lamu xukmallahi fii looloo tax il est obligé mu indi ayaat yi nga xam ne nii ñoom ñoo ordonné zikr il est obligé mu indi xadis yi nga xam ne moom moo ordonné zikr ba ba pare wax njariñam euh, loolu